par rapport ak audit yi nga xam le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lancé woon na ko mu daal di déployer daal toll si que moo di euh, vingt ay inspecteurs daal di war a mën a saytu euh, ces euh, administrations yi nga xam ni itam ñi fi nekkoon jiite woon nañ exactement alors euh, te dinañ daal di waxtaanee su lu bëri si euh, li nga xam ne que moo di audit yi nga xam ni itam lancé nañ ko euh, ku si nekk ak sa gis-gis ñiy jàpp ni dafa yéex ñi japp ni gaaw na alors mu doon première décision bo xamni tam le président Bassirou jëloon na ko à travers première réunion des ministres bi mu doon daal tenir force si doon na ko pour juste après sa prestation de serment alors Vieux Thiam mm-hmm. ngeen commencé tout d'abord par fouiller la gestion de Macky Sall ngeen juge que ni gestion bu escanale et que nous euh, mu toll il est temps de d'aller marquer les points sur les i pourquoi nous devons commencer par rapport à ces audits exactement. bon merci beaucoup Seigne Fallou ci laaj bi euh, di gërëm aussi le euh, président Bassirou Diomaye Faye ak monsieur le ministre Ousmane Sonko ak présidente coalition. conférence des leaders Aïda Mbodj parce que tey su ma toogee fii tey di am audace di wax ci Diomaye mm. peut-être premièrement Diomaye en tant que président de la République permettre na ma ko parce que avant may dugg ci coalition Diomaye euh, yàlla dogaloon na ma dem seeti ko prison man mm. ak moom ñu toog ñu waxtaan ma jox ko suma kàddu ne ko dinaa la dimbale dinaa la jàppale dinaa la soutenir dinaa la teg loxo ni ma koy dimbalee ak ni ma koy tegee loxo lenn kese la woon mooy un hmm. bi nga xam ne moom mooy union pour un Sénégal modèle defar Sénégal dinaa jël ay militant ak ñi nga xam ne aussi samay sympathisant lañ ak ñi nga xam ne man la ñu ànd ak dinaa leen recommander ñi jàppale président Bassirou Diomaye Faye. un deuxièmement li nga xam ne suma alalu bopp la maa ko ñaqal sama bopp sama liggéey la suma alal la hmm. lu mu tuuti tuuti sama alal la maa ko moom dinaa ko génn si sama poos dem teg ko ci taabal bi nekk pour président Bassirou Diomaye fay am ndam yàlla dogal euh, mu am ndam te xaar ñu ci moom dara comme ni ñu ko waxee woon ba ñu jàkkaari moom ci prison bi loolu la ñuy continuer di koy wéyal ci loolu noonu nag du man kese mako joxone hmm. confiance. Hmm. mais sénégalais yépp ñoko joxone bop confiance léegi comme que sénégalais jox la bop confiance en le li nga mëna def la moy nga xol li nga ne moy nga ne te ne gérer war nga ko auditer. Hmm. war nga tambalé ci le président Bassirou Diomaye Faye ñëpp xam nañ né nit ku euh, bëri jamm la. Hmm. ku yaru la ku ku xam lu mi def la doko dégg ci bruit doko dégg ci ay détails doko dégg ci ay problèmes dama japp né li nga xam né mom la wax muy affaire de euh, mission d'audit bi man dama japp né teelul moment bi moy moment bu baax bi parce que bas président Bassirou Diomaye Faye def na fi 100 jours ci 100 jours yi. dañoo nekk di defar dañoo nekk di teg ay innovation dañoo nekk di xool li nga xam ne moom lañu Sénégal yi gëmeewun ba jot ñu réew mi ñu ne ca tey audit yooyu tey dara ump la ne même boo demee ab si kër ki gën a nekk xale gën a nekk tout tànk day bëgg xam réewam ëllëg lan moo hmm. te kenn ñaanul yàlla nekk président de tous les sénégalais ngay bàyyi ñi fi nekkoon di def lu leen neex xaalis réew mi di koy pasar pasare di sàcc ay terrain di def ay dóor di njublang di teg ay deal di teg ay stratégie yoo xam ne defuñu ko lu dul seen intérêt bopp. lañ cay am voilà lañ cay am ñoom la. ak hmm. seen i njaboot ak ña ànd ak ñoom a ci new. Hmm. te wax dëgg fa yàlla déglu Sénégalais yëpp ñu wax la seen bëgg-bëgg mooy gën fukk junni yoon yow ngay déglu ki nga xam ne benn nit kese la wala ñaari nit nekk à côté doon def leen neex kon mission d'audit boobu noonu muy yow. muy man muy képp kuy yeewoo ci réew mi nekk un sénégalais war nga xam ne kat loolu lu jaadu la loolu lu ñu war a def la au contraire dañ koy yéex a def te yéexuñu ko def parce que président Bassirou Diomaye Faye mi ngi ci yoon bu gën a baax ci yoon yi lim nekkee ak ci lim ne ak ci tànk yi mu jël moom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ministre am ak premier ministre je vois que ñoom ñi ngi ci tànk bu extraordinaire man je une personne boo xam ne nii man <laughs> awma intérêt di défendre ki nga xam ne euh, dafa ñëw pour sànq réew mi. alors waaye man su ma demee bay euh, wax li nga xam ne euh, pour mission de lutte bi la c'est parce que loolu moom mooy yoon. L'ol moy li nga xamné ne euh, la Sénégalais soxla ci président de la république. alors japp nga ni teelul et que dafa nekkoon ben demande bo xamni ni itam sénégalais ñu ko doon daal di solliciter mais ñu jappé ni yifi dafa am wàllu ko payantool exactement manam euh, fayante bi digganteeg li nga xamné que modi le régime euh, de Macky Sall ak le régime de Bassirou Diomaye Diakhar Faye loolu itam yan lan ngeen mën tek suñu loxo pour dig exactement que ni. Euh, nekk ñu ben état de fayantol mais ben état de justice concrètement non franchement pour dire la vérité euh, képp ku que président de la république dafa nek di def liggéeyam comme il le faut nga jappé ko comme day fayantoo koku jappal né yow ànduloo woon sax président de la république pour mission pour mu parce que wa Bennoo ñom nee les urgences sont ailleurs euh, au-delà nek di euh, traquer li nga xam nekk moo di di di fouiller euh, cette gestion de Macky Sall. xam nga Mansour Faye sax japp ni da nga leen euh, euh, discréditer par rapport liguey bi nga xam ni itam doon ñu ko def pendant 12 ans. non xam nga ñom liguey bi ñu doon def pendant 12 ans franchement man duma né baxul. baaxul. am lu bëri lu ci bax mais amna lu bëri lu ci yées. Mm. ma sa bonde mais lu ci yées gouvernement Macky Sall am lu bari lu ñu def lu bax mais amna lu bari lu ñu def lu yes nañ ko reconnaître mais buñu japp né président de la république dafa tok pour defar réew ñom ñu def sen bop def sen xel na président de la république dafa nek pour defanteeg ñoom nee déet président de la république euh, euh, son excellence monsieur Diomaye Fay mom euh, kuko gis xam nga né ki hmm. objectif am du defante objectif am du xex hmm. am na ñoo xam ne ni ànduñu woon ak moom taal élection yi mais léegi dangay gis ne dañoo ànd ak moom parce que dañ naan dafa yaru dafa teey bëriwul biri waxam bariwul liggéey ko tax a jóg Sénégal nag mooy réew moo xam ne nii boo ko yoree ñu jox la ko nga def lu la neex nga def lu la neex ba Sénégal yi seppi la dindi la teg keneen keneen ki bu ñëwee pour teg affaire ci yoon yi ñoom dañuy jug ne

du question day dolli euh, day day day may dolé santé bi kese mais aussi day xol sécurité réew mais aussi day xol est-ce que réew ala lo réew fumay duggu fam dugg fam mu jëm ak fam ñu fa ñu ko lañ ko tek loolu amna ci droit parce que loolu c'est normal c'est un président de la république hmm. warna mëna a xam li néwon ci ginaaw la fa né ñi yor lan la ñu yor ak fa lañ ko jëlé la moy source bi ñi nga xam né wax dëgg fa yalla ñi ngi won ci dëgg ñi ngi doon def te yalla tax

concrètement sénégalais yi ko que ni Macky bugul opposant comme nous nga ko souvent que ni je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. fumu mujjé ak Ousmane Sonko. fumu mujjé mujjee par président Bassirou Diomaye Faye. zéro. man de wax deug fa yalla maa la koy wax fi fàllu. sénégalais yépp and ak man. moma ma gënal nga fekk ma fi ma tok jox ma ay milliards. parce que sénégalais yi buñ and ak yow mo ëpp fukk junni ay milliards. parce que mo ëpp sax sécurité parce que sénégalais si bopam ñom ñolay may nous yor sa sécurité la preuve est que Macky Sall lan la def ak pour dougal Ousmane Sonko ci pour candidat. Hmm. lan la def lu à la fin pour que Bassirou Diomaye Faye gagné. yalla si gagné bu nañ kon nañu accepter li nga xamné ne sénégalais def muy président Bassirou Diomaye Faye mu nek le président de tous les Sénégalais il faut ñu accepter ko. parce que amna moment bo xam non si duñ ko accepter. si opposition bi. si opposition bi amna ño ñoo sen xol sen xol bi atunul président Bassirou Diomaye Faye jiite le nek président. alors man mi di wax yow ni man ah, man damay des fois damay jek jékki statut président Bassirou Diomaye Faye am ñuma am ñuma par exemple wax ki ngay and ak léegi man ma leen man. man ak président Bassirou Diomaye fay ba ma ko fekkee fa ma toog. ci mm. prison bi. Mm. man personnellement Bassirou Diomaye fay fekk yu ma sama kër. Mm. Bassirou Diomaye Faye woowu ma téléphone. Bassirou Diomaye Faye euh, xamul fu ma dëkk musul ñëw sama kër mais man maa démarché dem ba gis président Bassirou Diomaye Faye fa ma toog ci prison ba ne ko man Vieux Thiane jël naa initiative ak décision jàppale la ci combat bi. bis bu ñëwee ba nga xam ne li nga xam ne defu ko. li mu waxoon defu ko wala li nga xam ne moom la ñu waxante woon te defu ko foofu ñun mën nañu ñëwaat fii ne ah ñun kat. kii dañoo àndaloon ak moom. Hmm. lii nga xam ne defu ko euh, waxoon nañu ko defu ko dans ce mën nañu toog te du boobaa du fii la ñuy ñëwaat yàq daram hmm. mais su boobaa si moom la ñuy dem. Hmm. wala fu ñu war a dem ba mu yëg ne information bi jot na ci ñu wax foofu noonu parce que ñun dañuy travailler ngir réew mi. ku ñu xam xam nga ne ñun dañuy travail ngir réew mi ñun duñu ay politiciens yoo xam ne ni damay toog fii di wax ngir pos Bassirou président Bassirou Diomaye fay ba mu nekkee fonctionnaire man ci laa nekk hmm. fonctionnaire hmm. ba muy liggéey man ci maa ngi liggéey vous voyez donc voilà voilà très bien exactement

Euh, waa APR nous ñoom ñi ngi démissionné si yenn si ay poste ñeneen sax jàpp ne waruñu leen woon may sax fu ñu démissionné euh, ñi leen di may occasion sax pour ñu espérer encore une fois la question qui se pose est-ce que concrètement li nga xam que moo justice euh, yéexul donc dañuy naan sax le temps de la justice n'est pas le temps aux autres concrètement bon man justice réew mi yaa ngi fàttaliku ay jamono fii laa la doon toog hmm. ministre de l'intérieur fi nekk mais cette fois-ci nous avons Euh, ñi nga xam ne euh, ñu bees lañ yu doog ko ñëw muy ministre de l' intérieur ministre de la justice ñooñu hmm. liggéey bi nga xam ne moom la ñu nekk